indi ñaari question mhm. natt yi démb ak tey maanaam ñu doon def euh, théâtre démb mhm. ak tey ba pare ñu ñambaas ci euh, deuxième question bi mhm. nga xam ni Mouhamed Villiers sama mbokk la sama cousin la Mouhamed dafa jàng théâtre génn dem Sorano am na ñu ci bari ci ñun ci géew bi nga xam ni nii fi lañuy tuddee théâtre bi maanaam téléfilm yi lañu jël naan théâtre du théâtre mm-hmm. téléfilm la maanaam ñu ñëw dem ci benn décor boo xam ne décor naturel la filmer ñu ci ñuy dem ak dikk bokkul ak théâtre nga xam ni da koy def sur une scène mm. soo ko defee sur une scène bu télévision ñëwee di jël image yi daf koy capter ñu tuddee ko captation alors ñi nekk foofu ba léegi gisatuñ leen ci seeni i ak xam-xam boobu ñu jàng léegi li ëpp doole mooy téléfilm yi te ku jóg rek dem ci téléfilm loolu da koy yàq. d'accord ñu bañuñu sax nga jaar ci troupe de théâtre xamadi en ndax ñu initier la nga xam ya tànk ngay teg nooy xoolee nooy gisee mais yu ci bari duñ ci jaar wute gi foofu la nekk. maanaam ñi yàkkamti doon dara parce que gis nañ benn artiste boo xam ne ñoo ngi koy tudd siiw na te bu ñëwee bërëb ñu may ko place moom privilège yooyu la yaakaar ni bu gaawee siiw rek aussitôt ñu daal di ko tudd. wala nga gis koo xam ne nii feeñ na télé benn yoon ñaar ñett rek acca moo fi mën il faut faire très attention kenn mënul kenn ki mën yàlla dong moo ko xam mais dañ ne su fekkee ni yaa ngi door mbir bëgg ko mokkal wutalub yoon. parce que boo ko jaaralul ci yoon du sotti. alors li am différence entre ñun ñi nga xam ne nii démb ñoo ngi fi ça fait plus de quarante ans ñoo ngi fii est-ce que soof nañ nit ñi. déedéet <laughs> mais parce que dañu xam li ñu téye naka la ñu koy benn benn lee jarul yàkkamti. tubaab dafa nii la patience et la longueur de temps font plus que force ni garage loolu mooy lan loolu mooy nit ki nga xam ni ànd naag dal ak tey buntu day ubbeeku ci moom te du xam lan la te doolee lay àndal bu boobaa. Mhm. ndax day sampu sancu c'est très important sampu sancu bu ñu la dugalee ci biir mu gën a sampu mais sancu day ànd ak i reen yu lay téye ci suuf. Mhm. Mhm. te loolu dafa am importance bu ñu yàkkamti. géew bi yaatu na pour ñëpp la. waaye rikki waay bu ñu yàpp suñu téléspectateurs yi di leen présenter n'importe quoi. médiocrité boo xam ne day delloo sax xel yi ginnaaw bari na fi ci biir théâtre ci li ñuy tuddee théâtre te téléfilm la yu ci bari nag yooyu moo leen di dab yàkkamti boobu daal di dem dem gisi ji benn caméraman boo xam ne sax xëy na wàcc na liggéey bëgg na am lu mu dugal ci poste bi kaay filmé ñu jox la di ah, xam nga Sénégal ni mu demee rek rotti mu roccaat mu demee noonu mu daal ko filmer tout si suite daal di ko wutal benn monteur noo dimbalil gos yi cinquante mille léegi nii ñu daal di leen tabax ba mu sotti daal leen jébal seen kaset ñoom ñuy lambar lambar ci télévision yi pour ñu teg leen. Hmm. au prix de quoi trois cent mille. Hmm. man sama jëm bopp su may joué ba mu fayul trois cent mille duma ko nangu waxatuma la ak groupe lëm mu nga jox leen trois cent mille. Hmm. ñu koy seddoo du mat ñu xiiroo xëccoo dóorante ay euh, kurpeñ. te jaru ko hmm. bu ko defee ñu naan moo lekk sama xaalis kii yoreel na ma lii kii nangam nangam dégg nañ ko ba tey hmm. loolu dafa ñaaw hmm. na télévision yi jël seen métuwaay am benn directeur artistique bu ñuy fal muy xool li ñuy teg di ko jébbal askan wi parce que am ngeen ci part de responsabilité bu mag a mag a mag bu ko ñëw rek joxe sa cassette parce que ñàkk nga programme nga def ko loolu tant que ñoo ngi koy def du ñu xam kan mooy kan du ñu xam ki mën parce que ñëw xott sa caaye mel nu la neex poudre sa kanam en général li ñuy wax ci comédie fii lan la dañu seet ku ñaaw. Hmm. ñu jël ko teg ko ci télé bi. Hmm. <coughs> te loolu rafetul. Hmm. bu fekkee ni respecté nga doomu aadama doo seet ku ñaaw pour teg ko te ngay jël ki nga xam ni mën na métier bi nga teg ko mu joué la ko. bu ñu bu ñu taxawee papa ci li nga xamante ni moom ngeen di moom xëy na loolu ngeen di woowee euh, théâtre mu di théâtre sur scène euh, dañu daan nemmeeku bu ay korité musaan jot wala tabaski à la chaîne nationale daan nañu tegal yu mel noonu pour la plupart du temps euh, ña nga ko daan national Daniel Sorano mais mm-hmm. ces gis nañ ni loolu amatul lan mooy problème bi y a des production wala ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo leen daan sollicité par rapport ak loolu ñoo ca mujjee génn ci doxalin ñu la rek télévision day euh, am yoon wu muy tëral ne lii laa bëgg a def ñi seq loolu wéy ca loola mais ñoo ñi di wéy ci loolu est-ce que xam ne béréb yi ñu war a dem ak ki ñu war a waxal mm-hmm. yooyu dafa am importance dañu war a lëkkaloo ñun ñëpp ku ci nekk jàppale sa morom man nekkoon naa fii ci rajo bi di def émission théâtre mm-hmm. am na bés élage ci boppam boole na ma ñoo xam ne ñii fii lañ nekkoon pour ñu gisante rek ñu toog ñu liggéey liggéey bu wér non ñu may daw daw loolu fii nangam ndàngam man mag laa taluma loolu xam nga lu may def am suma fulla ak sama fayda respecté bopp respecté ñi nga xam ne ñoom laa ko jox te muy gis ci télévision bi rus naa di leen won loo xam ne nii wax dëgg fi yàlla mokkul moo ñëwul te bu ëllëgee au mu béy lu baax ci ñoom déedéet lu bon lay béy. Hmm. fii dama ko yéene mu baax. ci jamono jooj mais bu ma gisee comportement yooyu duma leen sikkal du leen wax dara. dama leen di delloo seen cër comprendre luñ ma waxul ma baleen ci loolu ñu continuer. du ma dem fenn di leen di yàq seen tur diw dañ ma ko waxoon nag confié ma ko danga déedéet. dama leen bàyyi ci liñ mel parce que xam nga nag di nga tàkk nii mais jëppit doo ko def mukk. mais tey yéen boo bañee boo bañee xeltu. Euh, tey yéen papa ñu gis ne vraiment y' a beaucoup de y' a la génération qui vient temps bien que mal ñoom itam ñu ngi jéem xool yan moyen la ñuy bégalee sénégalais yi par le de li nga xamante ne xëy na loolu mooy seen spécialité ci comédie mais yéen ñi nga xamante ne xëy na yéen yéenay seen ay euh, doyen euh, lan yan jéego ngeen jël pour jàngal leen wala pour tàggat leen wala pour wan leen yoon wi nga xamante ne xëy na buñ fa jaaree dinañu ko def ni mu ni mu waree sans pour autant ñu heurter benn sensibilité. Euh, li may lay njëkk tontu mooy turu jàngale. dama koy koo ci wax ne ko dama ko jàngal nangam nangam mu fippu daal di am orgueil mal placé ni waaye dëggal li mooy wax dem télévision di ma wax moo ma jàngal ak man duma ko defal kenn bari na ci ñoo xam ni am na fu ñu jaar ak man fa laay yem mhm. man bëggoon naa muy jamonoy tey mm. Alaaji Ablaye bi muy dem ndeysaan noppaleku mhm. parce que mag la dañuy woote moom ak Moussa Diouf ak yooyu Moussa Diouf ci boppam te nekkoon divisionnaire bu euh, école des arts moo nu ko xawma koy teg ci place bi nga xam ni fi nga nekkoon mais ce jeune homme boo ko jëloon dana baax. Mm-hmm. ñu nekk fii ci jamonoy session yooyu ak daaray Kocc mu nekk loo xam ne nii nit ñi seen bopp daan nañ ñu jaxase kii moo mën kii moo mën kii moo mën te ñu ñëpp ay sénégalais lañ. Mm-hmm. mu am ci genre daal ñàkk fayda mhm. ak ñàkk mët ñàkk fayda mooy boo toogee bañ lay booleek nit amatoo fayda mm. boo amee fayda kenn du la booleeg nit doon kon sa ennemi la mm. ah bon ah waaw mhm. parce que xam nga lu tax mm. respecter yàlla dafa dëxuñu ci yow miy jigéen ci man ci ñoom ñii toog ñu ñëpp dafa dëxuñu ci ñoom mhm. weddi gis bokku ci gis nga sa loxo trait yi ngay gis chiffre arab la chiffre arabe ñaar ñi benn li lu taqaloo nii huit la benn bi nga gis un la tey sa càmmoñ da nga naan quatre parce que huit bi moo jiitu boo ñëwee ci ndeyjoor bi un bi la jiital benn bi teg ci ñaar ñi donc muy dix 18 1 la ak 8 boo ko additionné du la jox 9. 81 8 la ak 1 boo ko additionné du la jox 9. boo boolee ñaari 9 yi da ngay jàng les 99 noms du jë hmm. looloo tax nit da nga koy wekk respecté ko jox ko cër. Hmm. moo xam góor la moo xam jigéen la. Hmm. mais jox ko cër. ci nit ci boppam.